al madina travel salum jidda sen info international ak tarixa tijaniya in america si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bii di seen diine bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim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 buntu sujudu sahw balaa jàll nag danañ vérifier yenn ci masail yenn ci masail yi ñu jàngoon ndax dégg nañ leenam ndéet jàngoon nañ ci bind bi weesu ne yonantu sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallama jamaj na ci julli ay yoon te ay jamajam nag yàlla la soob ngir mu jàngal ñu bu ñuy julli bu ñu fàttee baa ñu juum bàyyi liñ waroon a indi wala indi lu su warula indi nan la ñuy corriger erreur yooyu le yonentu sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ ne ñaata yoon la jama ci julli kan moo ma mën a fàttali ñaata yoon la yonentu sallallahu alayhi wasallam ci julli Fatou Kiné maa ngi gis kii baa ngi wax de waaye ñëwul de ah mm -hmm. Mm-hmm. biñ ko ko waxe loolu déjà <laughs> ok so waaw ah, boobu benn la ci jamaj yi mu jamaj waaye imaam ahmad ibn hanbal wax nañu ne juróomi yoon la yonentu sallallahu jamaj ci ci julli juróomi yoon eh, boobu nga wax noonu ci la bokk mooy jog ci ñaari rakk fàtte taaye am na it jamaj boo xam ne dafa sëlmal ci ñaari rakaa dul yadayni fàttali ko jamaj na yokk jamaj na wàññi jamaj na julli ñeenti rakka fàtte jëm ci juróomeelu rakkaa ba mu pare baada salaam waxoon naa ci darsu bi weesu ne borom xam-xam ñeenti ngir yi nga xam ne ñoo gën a siiw ku nekk ci ñoom wuute nga ak sa morom ci juumte yi ñuy juum ci julli lan lañ leen war a sujjootal am na ñu wax ne sujjoot yëpp qabla salaam la ñuy doon ñen ñoo wax loolu ne sujjoot yëpp balaa ngaa selmal lay doon imam Shafi'i masha Allah that means you were taking notes it's very good to take notes and to try to memorize the information. It is said that the best way of learning is to write the most of what you hear and memorize the most of what you write. Uh, bind li ëpp ci li ngay dégg bind. ndax yaaram dafa ne maa xufida farra wa maa kutiba xarra lu ñu mokkal de mën naa daw waaye lu ñu bind moom dafay sax sa soo dee bind daf lay dimbale ci nga gaaw a mokkal ñun bi nekk ci daara ji am na téere yu nga xam ne lañ leen daan bind ba noppi soog leen jàng téere yi nga xam ne téere naxwu la yëpp téere arabic grammar yi njàng yëpp dañ koy bind ba noppi soog ko tàmbalee jàng teacher bi mooy la sëriñ bi moo doon yore master book bi de nu laa juróom yër da ngay bind soog a jàng su dee mulxatul iraab noonu su dee kitaabu tasrifi l afaal noonu su dee laamiyatul afaal su dee muqaddima kokkiye noonu su dee alfiyatu bnu malik noonu moo tax di jël note lu am solo la bul wax rek ne ah ñu ngi koy enregistré après après baaxut mukk do not postpone what you can do today until tomorrow kon imam shafii rahmatullah alayhi moo sujjood yëpp qabla salaam daa nee na dafa julli gi eh, dafa am lu ci yàqu dafa damm nga war ko jàng comme danga koy jàng nag balaa ngaa sëlmal ngay jàng damm damm ba nde boo sëlmalee ba pare génn nga ci julli gi ba noppi am ñeneen ci borom madhab ñu ne déeret sujjoot yëpp baada salaam la baada salaam sujjoot yëpp gannaaw bu ñu sëlmalee la moo ñeen ñoo wax loolu kan ci borom madhab yi wala ban madhab moo wax loolu ah abu xanifata rahmatullahi alayhi mazhabu xanifata ñoom ñoom ñoo wax ne sujood yëpp baada salaam ndax nee ñu danga boole ci julli gi lu bokkut moo tax nga war a sujood boo ca boolee lu ca bokkut nag balaa ngaa sëlmal boo ca dugalaatee beneen sujjoot ñaari sujjoot lu ca bokkut la day gën a bari nee ñu ne kon danga war a bàyyi ba sujjoot da ngaa war a bàyyi ba sëlmal soo ko sujjoot am ñu ne dañuy seet yonentu sallallahu alayhi wa yi mu jamaj ci julli saa yoo jamajee jamaj bu ni mel nga seet lam defoon bam jamajee jamaj googee nga def ko mathalan yonentu sallallahu alayhi wa mu jamajee fàttee toog ci ñetteelu rak ci ñaareelu rakaa dafa sujjoot qabla salaam nga def ko bi mu jullee juróomi rakkaa dafa sujjoot baada salaam nga def ko su fekkee nag jamaj nga jamaj goo xam ne gisuloo ci sunna yonantu sallallahu alayhi wa ne mos na koo jamaj gisuloo ci yonantu sallallahu alayhi wa ne nii la defoon ñu kon da ngay before taslim da ngay qabla salaam kan ci wala ban ci madhab yi ñoo wax loolu moo wax loolu Malik Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal Imam ah, Ahmad ibn Hanbal moo niroo nañu waaye wutee nañu moo gën a jege Malik waaye am na fu mu wutee ak Malik imaam Malik moom moog li imaam Ahmad wax seen wax yi jege nañu waaye Malik dafa faram fàcce détaillé comme ni ko Fatima waxee dafa ne ñu delloo ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam ñu càmbar ay yokkam ak i dañoo gis ne saa yum yokkee gannaaw buñ sëlmalee la sujjoot saa yokkee gannaaw bu sëlmalee la sujjoot waaye saa yu wàññee balaa moo sëlmal la sujjoot boobaa dootuñu wax ne ba defee lii lii la defoon ndax gis nañ ne loolee ngay def ngir la gam ko defoon dafa wàññi woon moo taxoon mu sujjoot qabla dafa yokk moo taxoon mu sujjoot baada therefore saa yoo wàññee rek sujjoot qabla saa yoo wokkee sujjoot baada soo boole yokk ak wàññi ci biir julli gi nag nga nootal wàññi gi daal di sujjoot qabla nga nootal wàññi gi daal di sujjoot qabla leer na de <clears throat> it looks like Salimata is asking me to translate into English how do you know I speak English Salamata <laughs> Salamata, can't you speak Wolof? Uh, Do you speak Wolof? Uh, just a little bit, mainly Pulaar in English. Mainly Pulaar in English. Okay. So we were saying that uh, we were um, talking about this chapter of forgetfulness in prayer. And I was asking questions about the last lesson the subjects or the masail, the questions we covered. According to the Maliki scholar, whenever one increases to the prayer, one prostrates after salam, after saying assalamu alaikum. If one decreases from the prayer, then one makes sujood before salam. When it comes to the school of Imam Abu Hanifa, all mistakes in salah are fixed with prostrating after salam. And the opposite is the school of Imam Shafi'i. In his school, all mistakes are fixed with prostration before salam. As for Imam Ahmad ibn Hanbal, we are going to see when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam committed this. Um, I mean, I wouldn't say commits because that's big. That's very big when it comes to the prophet. When he, whenever he forgot, you know, added or decreased, we will see what he did. If he prostrated, if he prostrated before salam, we do prostrate before salam. For example, he once forgot and got up right after the second sujood of the second rak'ah. He didn't sit and make tashahud. Through that, he prostrated two sujud before salam. And he once added one rak'ah to the salah. Instead of four, he made it five. He forgot. And he fixed it with two sujud. He fixed it. He fixed it with two sujud after he and did the salah after he finished, after he said, Salaamu Alaikum. So he said, when we do not know what he did, then we fix the mistake with two sujood before salam. And I said that the madhab of Imam Malik made more sense. Why? Because he went to the Holy Prophet to practice he investigated what he did and found that found that any time he prostrated before salam it was because he decreased and whenever he prostrated after salam it was because he increased so when there is increase and decrease at the same time in the salah then one prostrates before before salam Then one prostrates before salam. So inshallah, I will share with you the Akhdari translated into English so that whatever you don't understand in Wolof, it will help you there, inshallah ta'ala. Okay? So that was the main, the main uh, thing we um, covered uh, last uh, Wednesday. Mm-hmm. Uh, kii dafa fàtte sujoodu qabla ba sëlmal dafa fàtte sujoodu qabla ba sëlmal bi mu sëlmalee ba commencé def baqiyaatu saalihaat mu fàttaliku ne eh man de sujootuma sujoodu qabla bi kooku lu muy def. na def baada. daf koy sujjoot baada. su yàggee wala mu génn jàkka ji. na ko sujjoot su yàggee wala mu génn jàkka ji. julli dafay réparé dafay dafay julli gi julli gi dafay yàqu. provided pro, pro condition à condition mooy lamu mu la mu bàyyi ba war a sujjoot qabla mat ñetti sunna ba mu ëpp ñetti sunna la mu bàyyi ba war a sujjoot mat ñetti sunna ba mu ëpp waaye bu fekkee matul ñetti sunna kon non seulement julli ga du yàqu waaye dootul sujjoot sax dafay bàyyi sujjóot ba daf koy wàcc te julli ga dafay baax did you understand Salamata Salamata did you understand what you just explained yes the Wolof part of it you understood uh, <laughs> yeah you understood you just trying to play helpful art to us. We have a helpful art here, Fatima. So Fatima, <laughs> we have a helpful art here. We have Fatima Jah. So, ah, very good. Maybe maybe if my English is not clear enough, Fatima will translate for you in uh, translate for you into Pular. So to to recap, so you said that for the um, so basically that the prophet, um, if he decreased his prayers, he frustrated before, and if he increased, increased his prayers, yes, he frustrated after. after. yes. Okay. So yes, the la- the very last thing I was asking was if one, for example, has decreased, mm-hmm. and he has to prostrate before salam. But for some reason he forgot and remembered right after he say assalamu alaikum. The, that person would just have to make up the two sujood. But if he remembers after a long time or after he got out of the masjid. Then he is going to repeat the salah. Unless what he forgot, what he decreased, was not was less than was less than three sunnah. If it is one or two sunnah, then He's not going to have to make it up. And the salah is valid. But if what he forgot was more than two sunnah, i.e., three or four sunnah, then the salah cannot be fixed with sujood anymore. He's going to have to repeat the salah. Okay. Thank you so much. No problem. <clears throat> Uh, let me know if my English is not clear enough. Fatima Cham can help you with a clearer English. And Fatima Jah can help you with clearer Halpular. Mm-hmm. No, yeah, this Alhamdulillah. Uh, kii dafa fàtte sujoodu baada dafa yokk ci julli gi war a sujjoot baada salaam musalmal xam naa xel mi nekk ci reer bi mu doon bi mu tegoon sànq moo julli moom njóoba ah mu dem reeri dem reeri mu tëddee ba guddi mu tiit jóg ne waaw man de sama géeye ki ma doon julli sànq dama ko fàtte ndax reer bi dama fàtte sujjoot baada salaam bi ma ci waroon a sujjoot how does njoba fix the prayer nan lay retiré nan lay ah, naka lay tuddee corriger julli googu dafay sujjoot rek dafay sujjoot ñaari ñaari sujjoot baada salaam léegi su fekkee da nga bàyyi léegi léegi nag su fekkee Fatou Kiné vacances ya mu demoon daaw Sénégal dafa am benn tisbaar bu mu julli woon fàtte sujjoot baada salaam ba mu fàttaliku ko nuy def koy sujjoot rek su fekkee am jàpp dafay dem mu sujjoot ñaari sujjoot su fekkee amul jàpp mu dem jàppi mm-hmm. moom lay wax ne waman nasiya sujjoodal baadiya sajadahu walaw baada aam ku fàtte sujoodu baada na ko sujood même su fekkee daf ko fàttali ko after one year loolu de hmm? nga wax noonu de war nañ koo bindal <laughs> donc sujoodu baada no matter how long it is mm-hmm. you can just go into it when you remember ah. because sujudu ba'da is to targhim soroxal shaytaane la parce que julli gi ëpp na ba noppi ah. julli gi ëpp na ba noppi mm-hmm. julli gi ëpp mm-hmm. benn xarit Moussa moo daan wax yal na ko daan wax sëñ bi affaire yi méttiwul de ma ne ko méttiwul mukk wallaay ndeysaan ku bëggoon làmb la nag dafa gaañu ku bëggoon làmb bu ñëwee dafay indi ay xaritam ne ma kii ku baax la ndax dafa bëgg làmb ma ne ko aha <laughs> wallaay ndeysaan <laughs> ma doon nga bëgg rasulilah de xam naa nga bëgg. yow de loolu la moom de ah xam naa moom moom majzub la xam nga majzub bi moom fu ne la ñuy gis yàlla. lay loolu. majzub la. mooy ñoom mooy ñoom imam Sakho. Oh. <laughs> majzub majzub moom fu ne lay gis yàlla. ku baax la woon ndeysaan ma su ma gis ku tabe comme moom ku yaatu Eh, gàtt fan rek mooy catam taawam sama yaay la ko tuddee eh. bu xew amaan kër ga daal mbër yi am Dakar yëpp lay dajale indi ñëpp nag faas ak parcelle ak eh, wallaahi uh-huh. te man maay xaritam da mosuma dem làmb nee na wa man naqasa faridatan fala yujziu fala yujzihi assujudu anha ku wàññi farata nee na sujjóot du ko sujjóot kese-kese du doy pour mu réparer julli gi xam nga dañoo wax ne ku wàññi xabla ngay sujjóot ku yokk baada ngay sujjóot waaye dafay fekk li nga wàññi nekk ñaari sunna mbaa ñetti sunna wala muy benn sunna mu akkada waaye bu fekkee li nga wàññi farata la nag kooku moom sujjóot kese kese du ko rax du ko defer ma joxe exemple damay julli ma fàtte gannaaw bu ma sujootee ñaareelu sujoot ñaareelu rakaa au lieu ma toog taaye ma fàtte jokk suma ko fàttalikoo kenn du jóge ci farata di dellu ci sunna damay continuer julli gi rek su ma demee ba taaye bay bëgg sëlmal ma sujjoot ñaari sujjoot sëlmal walla ma taaye waa taaye bu gàtt sëlmal kon sunna yi ma bàyyi sujjoot rek doy na ci pour ma fixer ko waaye su fekkee dama fàtte benn sujjoot ci premier rakaa bi ba ma fàtte rukoo ci premier rakaa ma dem ba ñaareelu rakaa bi fasu wala ñetteelu rakaa bi wala ñeenteelu rakaa bi ma fàttaliku ne man de sama premier rakaa bàyyi naa ci ab ponk bàyyi naa ci sujjoot wala bàyyi naa ci rukoo fekk maa ngi ñetteelu raka wala maa ngi ci ñeenteelu raka rakk boobee nga xam ne dama caa bàyyi ab ponk yàqu na damay indiwaat beneen rakka complet mu remplacer rakk bi ma bàyyi rukuur walla bi ma bàyyi sujjoot su ko defee bu ma sëlmalee ma soog a sujjoot baada salaam ndax yokk naa ci julli gi moo tax mu ne woo man nasiya naka la ko waxeeti anamu fan laa nekkoon nati waman waman naqasa ku wàññi faridatan ab farata fala yujzihi du ko doy as sujudu sujud anha walis farata ba sujud mënta réparé farata boobu fokk nga indi sorry Imaam mënuñu gis sa screen sharing bi de man sama côté dafa flat. ah est-ce que du ci sa machine yéen ñi ci des yéen a ngi koy gis. man de maa ngi koy gis. defe naa ci sa ci sa machine la kon euh, Fatimatu. oh kon ok. du noonu léegi nag bu ñu bëggee xam boroom laxdar yu fan la teg fii fan la teg li mu wax nii dañuy consulter jëfi yonantu sallallahu alayhi wa ndax yonentu ba mu wàññee ba mu wàññee e, taaya te fàttaliku ko bala moo sëlmal dafa sujjoot rek sujjoot ba moo fixé sunna ya nga xam ne faat na leen ci biir julli gi waaye ba mu sëlmalee ci ñaari rakaa fekk mu ngi doon julli takkusaan wala tisbaar te Zul Yadayni fàttali ko ko te moom sëlmal na ba pare bu fekkoon ne sujjoot rek mën na koo fixé ko noonu dafay dem rek sujjoot ñaari sujjoot sëlmal hmm. waaye comme jullig ñeenti rakka ñaari rakka yee ca des dafa jóg kabar indi leen soog a sujjoot kon foofu la ñuy xamee ne képp koo xam ne bàyyi nga farata fokk nga indi ko sujjoot kese kese du ko mën a du ko mën a defar loolu nag am na laaj su fekkee dafa bàyyi farata bi lu yàgg soog ko fàttaliku ñu ne julli gi dafay yàqu lu tax ndax waaja doon julli julli gu ñaaw ga waaja doon julli julli gu ñaaw ga mooy julleem boolewu ca dal boolewu ca yemoo ba mu def ya muy def ba pare ñëw ci yonantu sallallahu daf ne ko irji fa salli fa innaka lam tusalli dellul nga julli yow jullee gookat waaw dellul nga julli ndax yemoo ak dal ci ay ponk ci ay farataay julli lañ bokk mhm. wa man naqasa ku bàyyi na ku wàññi na alfadaila ay ngëneel fala sujuuda det sujoot alayhi di ko war imam malik rahmatullahi alayhi jëfi yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf leen catégoriser ay ngëneel ak i sunna ak ragaib buñ tuddee ay ngëneel ci julli bépp allahu akbar bu dul kabaru armal bi rek ngëneel la wax rabbana walaka alhamdu ngëneel la sabal yi ngay sàbbal ci ruko ak sujjóot ngëneel la yooyee loo ca bàyyi moo xam danga fàtte wala fàtte woo doo leen sujootal kenn du sujootal ngëneel moo xam na nga fàtte bàyyi ko wala fàtte wo moo tax mu ne wa man naqasa ku wàññi na mu alfadaila ngëneel ya fala sujud alayhi sujud ko mm-hmm. bu ko bu xamee ne sujjoot waru ko nag mu sujjoot ngir bàyyi ngëneel julli ga yàqu na maanaam su sujjootee qabla salaam julli ga yàqu na ndax sujjootal na lus waruta sujjootal su fekkee dafa fàtte nag sujjootal ko maanaam du ak tey kon dafa yokk ci julli ga bu sëlmalee dafay sujjoot baate salaam leer na salamata a faami a nani ah sa yeah um so yeah I'm understanding a little okay so inshallah bu ñu paree lu ci leerul yëpp ma résumé la ko incha allah. ok no problem. incha yaay maam lii dafay firndeel que ne yow nit war na war nga compte euh, que en fait farata tout ce qui est sunna tout ce qui est ngëneel. loolu safuta wax am na ñu ne sax boo leen xamul boo jullee ba noppi sa julli gi baaxut. am na ñu ne ku julli julli gi ni mu war a ko war a jullee mu julle ko ta xamul lu cay farataak lu cay sunna julli ga baax am na ñu yax wax lool xam naa xaw na diis nag am na diis na diis nag mhm. loo teg eh, wala yakunu wala du loolu wala yakunu sujudu alqabliyu illa li tarki sunnatayni fa akthara sujudu qabla salaam du nekk lu dul bu bàyyi ñaari sunna mbaa lu ëpp ñaari sunna amee kenn du sujootal qabla salaam lu manqué ñaari sunna mu mel ni wax ji dafa leerut ndax dafa am ay séeréer yuy déglu mu leeral ko ne wa amma sunnatul waxidatu daal benn sunna képp fala sujooda laha sujood ñeelu ko bala nga sujood qabla salaam dafay fekk nga bàyyi ñaar mbaa lu ëpp ñaari sunna aa ah, ñaari sunna yu woyof mbaa yu ko ëpp kay waaye bu dee sunna bu dëgër bu dee benn ba sax danga koy sujootal mu mel ni dafa ma dégg mu ne ma dégg naa la di illa sirra wal jahra <laughs> illa sirra lu dul muy sunnab yellu fu ñu waroon yelloo ñu biral fa wal jahra wala sunna birël fu ñu waroon a biralee ñu juum fa yellu fa yellu mooy wax ndànk birël mooy wax ca kaw waaw loolu lu muy firi rek mooy lu dul sunna mu akkada lu dul muy sunna mu akkada mhm. siinaani shiinaani kada jiimaani taa aani addu sunani thamani jànguñu woon loolu ok ah, ñaari siin yu njëkk yi muy sirru ak suuratu ñaari shiin yi muy ñaari tashahud yi ñaari jiimi muy jëhru ak lan ah ah wal julus taa aani taani waral ñaara waral lan ak lan akbar takbir ak ak ak sami allah liman hamid takbir ak tahmid tahmid tahmid ah. mhm. ah, takbir ak tahmid takbir mooy wax allahu akbar tahmid mooy sami allahu liman hamida ñaari takbir ak tahmid ay sunna yu woyof lañu boo leen bàyyee ñoom ñaar yëpp da nga boo ca bàyyee benn képp doo sujoot hmm. déedéet déedéet déedéet kenn waxut lool kenn waxut lool kenn waxut defe naa imaam Shafii moo ko waxoon masala mi dootoo ko fàtte nee na masala buñ la cee ree dootoo ko fàtte bàyyil ñu ree la ci borom téere bi dafa ne wala yakunu sujudu alqabliyu dus nga yaa ngi yaa ngi liir wala yakunu sujudu alqabliyu illa li tarki sunnatayni fa akthara sujudu qabliyu du nekk ludul ci bu buñ bàyyee ñaari sunna mbaa lu ëpp ñaari sunna 13 wala lu dul buñ bàyyee ñaari sunna mbaa lu ëpp ñaari sunna kon kon soo bàyyee ñaari sunna yu woyof maanaam maanaam lu dul ñu bàyyi au oh, minimum ñaari sunna hmm? mhm. waaye nag ñaari sunna yu woyof su fekkee ne benn sunna nga bàyyi te muy sunna bu diis bien que benn la da sujjoot qabla loolu moo tax mu ne wa amma sunna sunnatul waxidatu daal benn sunna fala sujjooda laha déet sujjoot di ko ñeel illa sirra sauf yàllu wal jahra ak biral mu daal di élaborer ne faman asarra ku yellu na mooy jàng na ndànk fil jahri ci fu mu waroon ca kaw sajada qabla salaami dafay sujud qabla salaam dafa wàññi wa man jahara ku jàng ca kaw fi sirri ci fum waroona waroon ca suuf sajada baada salaami day sujud gannaaw sëlmal ndax dafa yokk kon bu fekkee ne sunna bi nga wàññi benn la waaye sunna bu foor la mooy mu bokk ci ñaari siini mbaa ñaari chiini jiim yi sunna boobu même bu dee benn la danga koy sujootal su fekkee nag ne sunna bi dafa bokk ci ñaari taay bu fekkee benn ba rekk nga wàññi doo sujoot su fekkee ñaar yépp nga wàññi nag da ngay sujjoot question imam mm parfois nga gis ko ko xamante ne dafa waroon a jàng ci kaw amin jàng ci suuf mu jàng ci kaw mu commencé jàng ci kaw fàttaliku ko ni ci suuf la war a jàng soo dafa war a sujjoot walla su fekkee li jàng bariwul jaru ko su fekkee nag jàng na par exemple fatiha ba mu jeex ndax fatiha ko fàttali ko mu jàngaat ko kooku dafay sujjoot su ko jàngut dafay sujjoot maanaam su ko jàngaatee yokk na su ko jàngaatut wàññi na su fekkee dafay waroon na biral mu yellu waaye kuy jàng bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rek mu fàttaliku ne ah dama war a yellu benn aaya ñaari aaya lu néew dañ koy baale. so day day commencé waat ci lu mu mën a def rek lu néew la des koy baale su continuer des koy baale baal su ba su commencé waatee des koy baal ndax bu fekkee ne nag dafa wàññi faatiya gi yëpp maanaam dafa jàng dafa jàng faatiya yëpp ndànk te waroon ko jàng ca kaw su commencé waatee. dafay sujoot su commencé waatut dafay sujoot ndax xas na def erreur bi ba jàng fatiha bi ba mu jeex ci yàllu fekk daf ko waroon a biral xaw ma leer na am leer na am naa sama am naa sama jarbaat nee na ma nee na ma su ma koy jàngal wala su may expliquer dara su leeru sax daf naan ma leer na leer na ndax nee na ndax nee dafa mos a dégg ma ne yonentu sallallahu alayhi wasallam bu daan jàngale bu daan wax daf koy répéter ñetti yoon ndax dafa am ñoo xam ne dañu slow foog nga répéter pour ñu mën a comprendre te comme moom li muy jàngale lu mu wax rek législation la bu ko nit ñi déggul àdduna tukki waaw ah, mu ne nag day bañ ma catégoriser ko ci ñu sulaw ñu moo tax bu comprendre sax day wax uhu uhu <laughs> ne ko loolu de musiba da <laughs> ne ko léeg-léeg ci yow léeg ci léeg wax la man naa man miy wax ma waxut wax ju aha yep euh, euh, la béykat. ci julli li ñuy wax ma ma euh, bi rek comme ni boo ñëwee fekk imam imam ngay ngay julli bi nga fekk imam toll ci ci kii ci rak ci rukkoo bi ci rukkoo bi ci rukkoo ci rukkoo wax ji ci rukkoo bi sujjóot luy loolu. déedéet déedéet sujjóot laa bëggoon wax ma wax rukkoo sujjóot laa bëggoon. waaw. sujjoot boobu yow rakka boobu bokkoo ci rakka bu la rukkoo ba rawee rek bokkoo ci mhm, am na nag séeréer yoo xam ne bu ñëwee ñoom dañuy dabe <laughs> am na séeréer yoo xam ne bu ñëwee fekk imam bi sujjoot dañuy jàng seen fatiya ba pare dab ko rukkoo rëf rëf rëf ah, loolu baaxut loolu kenn du ko def boo ko defee it <laughs> rakk boobu am amul amuloo ko boo ñëwee imam fu mu nekk rek foofu nga koy fekk dangay kebar nga fekk ko foofu su fekkee nag fekk nga ko mu téye ay yoxoom ci ay wóomam siggeegul ci rukoor bi rakk boobu même su fekkee Fatiha baak saar ba raw na la ca nga bokk bu fa nekk nan damay jàng Fatiha soog dem imam jàngal na la Fatiha su imaam siggee nag su imaam siggee ca rukoox ba nag dangay kabar fekk ko foofu waaye ràkk boobu yow bokkoo ci su sëlmalee da ngay indiwaat ràkk boobu soog a sëlmal léegi nag su léegi nag su fekkee ne imaam am na sujootu qabla salaam ci julli googu même su fekkee ne yow fekkee woo ba muy def njuumte ga bu imaam sëlma su jotee xabla salaam da ngay sujjoot ak moom soo paree bu sëlmalee nga soog a fay sab rakka su fekkee imaam dafa def njuumte goo xam ne nag baada salaam lay sujjoot yow bu imaam sëlmalee di sujjoot baada salaam bu ko faale jogal rek nga indi sa rakka soo paree nga soog a sujjoot ba da salaam ndax ilimaan kat boo juumee mu gàddu la bu juumee yóbbaale la xaw ma dégg ngeen maam ndéet imaam soo juumee mu gàddu la lu dul nga bàyyi farata mm, su juumee nag juumale la même soo juumut yow tey jii boo fàtte woon allahu akbar budul kabaru armal fàtte dégg nga sami allahu liman hamido waaye sami allahu liman sa doo ko wax rabbana wa lakal hamdu ngay wax yaa ngi dégg eh, wala nga fàtte taaya toog nga ak waaye fàtte nga taaya woo dégg nga fàtte nga boole ci allahu akbar sunna yooyu yëpp nga fàtte doo leen ndax yaa ngi ci responsabilité iliman moo lay mooy gàdd moo la gàdd waaye su fekkee ne ilimaan dafa juum même su fekkee ne yow juumoo ilimaan buy sujoot dangay ngay sujoot kii soxna Faatu di wax nag moom dañ ko raw ilimaan di sujoot waaye sujoot ba balaa balaa imaam di sëlmal la ko def yow mim raw dangay ngay ànd ak imaam bi sujoot sooga Eh, indi maanaam gannaaw bu mu nga soog indi lila la dese su fekkee imaam bi dafa sëlmal nag ba noppi di sujoot baada salaam yow mim raw balaa nga sujoot indil lim la rawee ba noppi bu ko topp xaw ma leer naam ndéet alhamdulillah Mm-hmm. Mm-hmm. ma dem sëñ Mansour mën naa wax ma demam. waaw. Eh, fuñ toll woon wala yakunu sujudul qabliyu illa li tarki sunnatayni fa akthara wa amma sunnatul wahidatu fala sujuda laha illa sirra wal jahra faman asarra fi ljahri sajada qabla salaami wa man jahara fi sirri sajada baada salaami du noonu ku ku yellu ci barab bu biral dafa wàññi soo ko wàññi da ngay sujoot salaam ku biral ci barabu yàllu dafa yokk te ku yokk da ngay sujoot baada salaam loo teg wa man takallama ku wax saa saahiyan xaal la bu ko wolofu saalum saalum di firi danaan mbir moom muy aji jamaj mbir moom muy aji jamaj maanaam dafa fàtte wax sajada dafay sujoot baada salaami gannaaw bum salmale moom mi ngi julli eh, Fatou Konaare aksi salaamaaleykum ayaa njóoba na nga mu ne ko maa ngi fi o oh, fàtte toogal koo fàtte waaye wax ja bariwut ñu ne ko kon nag boo sujjoot boo sëlmalee nang ko réparer sujjoot baada salaam ndax danga ngaa yokk ci julli gi lu ca bokkut da ngaa yokk ci julli gi lu ca bokkut lan la ñuy déggee ci ne su fekkee ne wax ja moo ko tey lan lañ ciy déggee su fekkee ne dafa wax te tey ko luy dal ju liggéey te tey ko te moo ko tey moom moo tey wax julli gi moo xam benn baat la wala ñaari baat la julli gi lu dul nag muy wax joo xam ne wax juy defar julli la xam nga dégg ngeen maam déet lu muy wax joo xam ne wax juy defar julli la yonentoo gi nii sallallahu alayhi wa sallam sëlmal ci ñaari rakka dem toog zul day ni ñëw laaj ko ndax julli gi dañ ko dafa wàññeeku wala dañ ko wala da ngaa fàtte ko benn ci ñaari amul mu ne ko ah kay am na boo am moom li dul day ni wax dëgg la ñu ne ko ah kay mu jog kabar mottali julli gi yonentu wax na dul day ni wax na waaye wax guy defar julli gi hmm? su fekkee wax ja wax juy defar julli la dégg nga wax ja du yàq julli ga ah su fekke wax ja njuumte waaye dafa bari dafa fàtte julli ba ci kanam ñu ko mu fàtte ne mi ngi julli mu ne ah kii de sama client bi fi waroon na ñëw la xaaral ma jël ko <laughs> ndeysaan mu ne ca mu kii nga bëgg ay twist nga bëgg wala <laughs> mu nekk fa di ko kii <laughs> waaw waaw bu dee Fatima la mu naan ko waaw la transfert bi wala defaloon jot nga ci moo ak moom ba ku diggi sori <clears throat> julli nga yàqu na bu yàgg waaw hmm. wax ja bëree rek julli ga yàqu na moo ko tay wala tayu ko wa man sallama min rakaatayni aha bisimilaay dama doon wax ni bu fekkee ni dafa imam da koy dafa am imam dafa nekk ginnaaw imam du julli téléphone am sonné mu décroché ni allo coupé damay julli coupé julli daal di continué waa julli bi. <laughs> yow sa réew <laughs> sa bi rek tontu na <laughs> kooku koy julli du yàqu yem ja dañuy wut wut beneen ilimaan. imaam bu ah bu ma ki ko keneen na ko def. waaw kooku bu fekkee du im bu imaam dañuy wut yar bu fekkee du imam dañuy wut yar dañuy wut yar <laughs> ne ko yow balaa nga ñëwati ci jàkka ji na jàngi julli. déedéet da nga jàngi julli kay lañ koy wax ndax ñu fay téléphone dara la waaye wuyu téléphone naan maa ngi julli moom. kooku dañ naan ko dañ koy dañuy wër yar balaa ngaa ñëwati ci jàkka ji da ngay jàngi julli bu dee ilimaan nag ñu wut beneen imaam waaye julli gi moom yàqu na ci yàqu yu njëkk ya na ca yàqu yu njëkk ya wa man sallama min rakaatayni ku juum sëlmal ci ñaari rakaa niñ ko jàngee woon ci xadiisatul yadayni sajada dafay sujood baada salaami maanaam lim xasaf fii dafa bari seetlu nga wax ci daf wa man wa man min rakaatayni sajada baada salaami lim xasaf bari na dafa maanaam la bëgg a wax wa man sallama min rakaatayni saahiyan saahiyan de la war a def saahiyan mbir moom nekk muy aji juum dégg nga lu muy def qaama wa atamma salaata thumma sajada baada salaami loolu la maanaam li mu li mu tëb li tëb jarul mu koy wax ndax xam nga ko moo tax waxu ko lim mu bëgg a wax mooy ku juum sëlmal ci ñaareelu gannaaw ñaari rakka na jok indi li des ci julli gi bu sëlmalee sujjoot baada salaam loolu la bëgg wax waaye ba ñuy jàng naxwu ci eh, ibnu malik daf ñuy jàngaloon ne xasaf luñ xam xasaf luñ xam maanaam loo xam ne nii boo ko waxul sax ñu xam ko nee na xasaf ko dagat na waaw te julli gi dafa manqué. déedéet manqué wut de dafa julli gi dafa ëpp. waaw après mu jóg indiwaat ñaari raka bu fekkee ne tisbaar la mbaa takkusaan mbaa mu soog a sëlmal ñaata si ñaata si la sëlmal. ah. imaam imaam imaam Baye mooy wax ma xaqataay rek dégg naa affaire bi dégg naa ko <laughs> ma dàq suba la tabaski mooy mooy bi may dugal ci groupe bi risala bi am na benn am na bindu risala bu may dugal ci groupe bi def naa ci ñaar xam nga gis ngeen comme déet ah, parce que parce que kii jàng risala bi ilimaan la macha allah ab ni koy defee noonu moom moom. ab ab xam nga imam buy jàng jàng ma du du du compliqué. Ah, ku baax la ah. <laughs> imam Baye ku baax la Kentucky la dëkk dafa baax wallahi ah, donc wallahi wallahi moom mooy lan. ci ku sëlmal. mooy ñaari ku sëlmal. ci ñaari raka yow ñeenti rakka nga war am nga am ñaari rakka sëlmal. dafa ne wa man sallama ku sëlmal min rakaatayni ci ñaari rakka képp. saahiyan mbiram nekkam di aji jamaaj mooy dafa fàtte. sajada baada salaami na sujjoot baada salaam ma lim tëb bëri na ndax xam nañ ko moo tax mu tëb ko lim waroon a wax mooy wa man sallama ku sëlmal min rakaatayni ci ñaari rakaa saahiyan mbir moom nekk muy aji jamaj qaama na jog thumma ata topp mu dikkee bi ma baqiya li des min salaatihi ci jullim ga thumma gannaaw ga sajada mu sujjoot baada salaami gannaaw bu mu sëlmal loolu la bëgg a wax waaye borom imam malik mu ne wa xadfu maa yuclamu jaizun kama taqulu zaydun baada man indakuma ku nekk seen kër te fekk ndey faatu konaare moo seet ku nekk ci kër ga nga ne faatu konaare xam nga am nga loo xasaf waaye ki ngay waxal xam na li nga xasaf moo tax waxuloo ko ku nekk ca kër ga da nga ko doon wax ne ko faatu konaare moo nekk ca kër ga waaye boo ne ko faatu konaare rek xam na ne moo nekk ca kër ga nga bëgg a wax am déet moo tax lu ñu xam jaru mën nga ko xadaf bokkul ci euh, bokkul ci fasaxa loo xam ne jarta wax nga wax ko waaw bokkul ci fasaxa loo xam ne jarta wax nga wax ko ma kii njóob soxna njóobu daf ne kii dafa wàññi ma ne ko déedéet dafa yokk ndax sëlmal gi mu sëlmal ci ñaari rakkaay boo ko booleeg ba mu sëlmalee ba julli gi ci sëlmal ba mujj ba julli gi am na ñaari sëlmal te benn sëlmal la waroon am kon yokk na na sujjoot baada salaam wa man takallama wa man sallama képp ku sëlmal min rakaatayni gannaaw bu mu jullee ñaari rakka képp saahiyan mbiram nekkam di aji jamaj sajada na sujuud baada salaami gannaaw salman xam nga mi ngi mi ngi guddi te bëgguma bëgguma ñu indil ma jafe-jafe xam naa kon dañuy taxaw fii <laughs> ah, aha ah ñu continuer ñu continuer déedéet man kay yéen laay xalaat yéen laay xalaat ayca kon ayca kon ñu dem ca page ba ca topp li ma confuse foofu euh, en fait ni nga koy résumé dañuy wax ne kon boo boo yokk dans qabla ngay d'accord xam naa fi xam naa xam naa xam naa problème bi xam naa problème bi ngay jànkuwanteel boo wàññee. Mm-hmm. yokku. waaw waaye yokkaatul ñaari rakk parce que sëlmal ba mu sëlmalee. waaw maa ngi ñëw xam nga ba mu boo wàññee yokku. du bokk ak langa wàññi parce que kii dafa sëlmal pare ci julli gi te warta sëlmal kon julli gi matagul fokk mu yeggali ko léegi fan lañuy ñuy ku wàññi yokk mooy julli gu damay julli tisbaar mbaa tàkkusaan mbaa timis mbaa gaye mbaa suba rakaa bu njëkk bi <clears throat> ma jàng fatiha rek jànguma saar wàññi naa wala wàññiwuma ñeenti rakka laa waroon a julli ma yokk ca beneen rakka muy juróom yokk na wala yokk ma forme bi la ñuy considérer wàññi ak yokk ah, waaye kii dafa julli te julli gi matut wàññiwul dara julli gee matagut rek dafa juum dafa juum sëlmal julli gi matagut waa ngi dégg la nga wàññi ñu koy considere wàññi kooku mënoo koo defaat mm-hmm. soo ko defaatee rek wàññeetoo da ngaa yokk tey jii su ma juumoon jàng fatiha ci suuf ba fatiha ba jeex te ci kaw laa ko war a jàng ma continuer ba ca ñaareelu rakka ba ma ne ah ma de sama faatiye bii ci kaw laa ko waroon a jàng jànguma ko ci kaw kon wàññi na waaye su ma jàngee faatiha ba ci wala dallina ma fàttaliku ne man de sama faatiya bi ci kaw laa ko waroon a jàng waaye ci suuf laa ko jàng ma jàngaat ko ci kaw dama wàññi wala dama yokk dama yokk parce que ja faat faatiya déedéet damaa parce que faatiya bi jàng naa ko ci suuf jàng naa ko ci kaw uh-huh. donc même problème bi ngay fixé mënoo cee considéré wàññi yokk en même temps loolu rek laa bëgg a wax uh-huh. wàññi ak yokk ñaari cas yu bokkul lay doon c'est-à-dire jàng naa faatiya dama ko waroon a jàng ci kaw ma jàng ko ci suuf ci deuxième raka bi ma fàtte jàng ma ma ma ma ma fàtte saar wàññi naa troisième raka bi ma juum yokk benn sujjóot wàññi naa ñaari yoon ci julli yokk naa ci benn yoon waaye su fekkee lama ma la ma yàq moom laay defaraat yokk rek fa mën a nekk seetlu nga ko tey jii nii yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu jógee ci ñaari rakkaa yi taayewul dafa continuer tey jii man su ma jogoon ba taxaw di jàng fatiha ma fàttaliku ne sama ñaari rakkaa yi de taayewuma xam nga dañ maa ma continuer mm. bu ma continuer woon wàññi naa n'est-ce waaye su ma toogaatee fixé problème boobu soo ko jogaat rek wàññeetuma damaa yokk ndax taxaw naa toogaat seenu nga ba ma ko bàyyee dem maa ngi ci fatiha bi ma continuer damaa wàññi waaye suma ma toogaatee defer ko doon ko tuddee wàññi ak yokk yokk rek la ndax même problème bi laay fixé loolu moo feeñ ci ki su ci bi amee ñaari raka yonentu sallallahu alayhi wasallam ba mu su jootee bi mu amee ñaari rakaa ñu fàttaliku ko ba mu indee la ca des ba mu sëlmalee ci bi mu amee ñaari rakaa laa bëgg a wax bañ bañ ko ko fàttalee ba mu indee la ci des baada salaami la sujjoot moo tax mu ne wa man sallama min rakaatayni saahiyan sajada baada salaami yàlla am na ko doon laaj benn jour tamit mu euh, ki nga xam ne dafay julli euh, bi mu bi mu julli bi mu euh, defee dafa en fait dafa dafa xamatul ndax tari na Fatiha ou pas. Mhm. te Fatiha kenn du ko tari ñaari yoon. kooku nan lay nan lay réparé loolu te du premier rakk bi daf koy bàyyi mu mu mu nul. comprendre de comprendre ma de waxaat question bi. ok. ki nga xam ne dafay julli. Mhm. mu toll ci premier rakka bi. Mhm. mu xamatul ndax tari na Fatiha ou pas. muy mhm. tari saa. Euh, kooku tariwul Fatiha. léegi moom mu ne xam ni. tariwul Fatiha. nee na xamagul waaw. waaw ba mu xamagul rek la ko tariwul. <laughs> ok ok <laughs> parce que dama ko laaj man tam ma confuse ma ne ko ci loolu moom ñebe ah. nga kenn du tari Fatiha ñaari yoon yu la ci lu wóor. waaye moom ba muy sikk sàkk ne soriwul rek soriwul dafa am danga ah, jàng ci biir ne booy sikk sàkk ndax looy sikki sàkk ndax def nga ko defoo ko rek defoo ko loolay règle bi looy sikk sàkk ndax def nga ko wala defoo ko defoo ko ndax al yaqiinu waaw loolu was-wasa la loolu feebar la Ah, ah, loolu feebar l'exception confirme la règle ah kooku kooku kooku kiiwul maanaam principe bu al yaqinu la yazulu bi shakk lu wóor du dañee ci sikk sàkk mm-hmm. waaw lu wóor du dañee ci sikk sàkk xam nga li wóor mooy jàng ñàkk a jàng ndax bi ngay jugg si julli gi moom jàngoo faatiha nga ah, dugg ci julli gi xam nga jàngoo bi nga kàbbaree ba dugg ci julli ngay sikk sàkk ndax jàng jàngoo ko li wóor jàng gi moom ñàkk a moom am na li wóor mooy jàng li wóor nag du dindi li wóor waaw règle bu rëy la nag lu sikk sàkka du dindi lu wóor règle bu rëy la dafa bokk ci juróomi principe yi gën a mag ci principe fiq yi bu njëkk bi mooy innama al amalu binniyaati jëf yi yéene yee leen imaam Shafii nee na xadis jooju dugg na ci juróom ñaar fukki bunti fiq bunti fiq yi doon téeméer juróom ñaar fukki yëpp innamal a'maalu binniyaati dugg na ca tey jii buñ la fekkee ngay julli ñaari raka man mi lay xool mënumaa xam ndax da ngay naafile wala farata ngay julli ñeenti rakaa mënumaa xam ndax tisbaar la wala tàkkusaan la li koy différencier mooy yéene yéene mooy mooy différence mooy tax ñu xàmmee jaamu yàlla yi mooy tax tamit ñu xàmmee jaamu yàlla ak lu dul jaamu yàlla kii dafa dugg ci wanag wi ubbi saasam sangu génn am sangu farata kële dugg ci wanag wi ubbi saasam sangu bi mu génnee dafa tilimoon rek di setal yaramam lu leen différencier yéene kii dafa dugg ci jàkka ji dégg nga jublu penku ñu koy bindal tiyaabo kii dugg ci jàkka ji jublu penku ñu koy bindal bàkkaar <laughs> te boo leen xoolee yow benn photo benn benn image rek ngay gis ki dugg ci jàkka ji jublu penku toog jublu penku kii mi ngay ju mi ngay mi ngay am tiyaabo ndax yonentu nee na ki ki xaar julli mi ngi ci julli kon moom bi muy dugg yéene mooy toog xaar julli gi toog gi mu toog foofu di xaar julli gannaaw bu mu defee taxiyatul masjid toogaay ba yépp ñu ngi koy bindal tiyaabo kii nag bi mu duggee ci jàkka ji toog gi mu toog jublu xibla mel ni kuy xaar julli te ñu ngi koy bindal bàkkaar dafa jël yëfu jaambur ñëw làqatu ci jàkka ji bañ ñu gis ko yéene mooy fii bu fi nekkee kenn du foog ni fii laa nekk yéene lu foor la yéene ñaari nit romb ci mbedd mi nga bàyyi fa sab kalpe ki jël ko def xool gis xaalisa ci nekk mu def ci poosam ñu koy bindal tiyaabo kii gis ne xaalis ci nekk mu def ci poche am ñu koy bindal bàkkaar ku njëkk ki yéene mooy dem police mbaa fu mu yaakaaree ne dana fa feeñee ku ñaareel ki daf ko bëgg a jëndee xar yóbbu kër jabaram cise cise la loolu mooy qaacida bu njëkk bi beneen principe bi wala beneen règle bi mooy lu wóor du dañee ci sikk sàkk règle boobu nag boroom xam-xam yi dañ ci d'accord waaye ci application yi Malik dana ca wuute ak yeneen boroom xam-xam yi ci biir application bi waaye règle bi moom ñoo ca ñoom ñëpp d'accord nañ ci lu tax ma indi ko fii dañ ko fee soxla yeneen yi ma wax leen rek waaye duma leen ma ci joxe misaal ndax bu ca nekk ci i bu nekk ci rek mën na mën na dars mën na session ñetteel bi mooy almashaqatu tajlibu taysir su jafee rek yomb loolu nag booy tukki yi wàññeek ki am mbërëg bañ a fay eh, julli dégg nga Eh, ku amul ndox tiim ku sol ay sang mbaa kawas mën ci masa yooyu yëpp ci règle boobu la dugg almasaqatu tajlibu taysir coono dafay woo yomb ndax yàlla moo ne yuridu llahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr ñeenteel ba ad dararu yuzaalu lor dees koy dëñal lii cosaan ci loolu mooy la darara wala dirara xadis bu mët a bàyyi xel la moom it waaw boobu mooy tax ki ki loru mën a lekk médd mooy mu ci la ad-darurat tubixul maxdurat judde waaye nag ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha du tax nga exagéré contrainte yëpp ci xadis boobu la dugg juróomeel ba mooy alaadatu muhakkama mbaax des koy atteloo mbaax mooy aada maanaam lislaam dafay tenir en compte culture lu mët a bàyyi xel la lu mët bàyyi xel la waaw a ñaa jëkkër ak jabar a ngi nii di werante jox na ma can gi joxuma can gi dañuy seet ci seen aada ñoom bu fekkee ne caamen ku fa takk jabar balaa nga céetal dangay joxe can su fekkee ne céetal nañ ba noppi nga naan sa waa ji joxul ma can gi dañ naan la hey jox na la can gi su fekkee céetalaguñ bu ngeen demee ci xaadi daf naan ko hey joxul la can gi ndax aada foofu la ñuy seet ne fii kat amul kuñ fi mos a takk céetal la te joxuñ la can kon yow boo bëggee ne woote ne yaay exception bi duñ ko nangu wala amul kuñ fi mos a takk jox la can te ceetala guñ la su waa ji waxee ne joxoon naa ko canam gi duñ ko nangu aada des koy tenir en compte xam nga njaay jënd dañoo war a juboo ci prix juboo ci kàddu nga jox ma sama xaalis ma jox la sa marchandise waaye aada dana tax wa am lii ñaata nga koy jaayee na nangam laa koy jaaye amak yëpp dootul kii aada tey ñun am nañ aada ci Amazon boo xoolee gis prix bi rek nga daal di dugal sa crédit card mel na ni waxtaan ngeen ba juboo ci aada nga ñëw ci boutique bi rek daal di ko jox juróom eh, nga daal di teg juróomi juróomi nga ñëw ci boutique bi teg juróomi dërëm jël eh, almet bi dem parce que xam nga borom boutique bi xam na ni lii lay jar waxul waxoo waxul moo tax almaarufu urfan kal mashruti shartan luñ xam ci aada dafa mel ni sharta luñ déggoo la bi ma doon wax nag muy alyaqinu laa yazulu bi shakki ma ne ala imam malik ak ñëpp d'accord nañ ci waaye fu mu wuuteeg ñoom mooy ci application yi ci benn wala ci yenn bërëb xam nga tey su fekkee ne nit ki njàppam yàqu na dem na tuur ndox dem tuuree ndox ba ñëw toog jot ñi ñi jóg di julli ji muy sikk sàkk ne waa man est-ce que am naa njàpp wala awma njàpp moom xam na ne tuur na ndox il y a une heure de temps waaye li muy sikk sàkk mooy est-ce bi mu tuuree ndox ak léegi jàpp na fi dañ naan ko sikk sàkk du dëñal certitude doute mënul dañoo certitude certitude mooy tuur nga ndox kon jàpp li moom yàqu na jàpp jàpp yàqulu jàppali moom leer na la li la leerul mooy ndax jàppaat nga looy def dangay dem jàppi da ngay dem jàppi hmm? loolu imaam Malik dëppoo na ci ak borom xam-xam yi xam nga fu mu wuteeg ñoom oh. waa ji jàpp na julli timis toog di jàng mu toog rek dégg noddukat bi nodd gee mu ne ah man de leer na ma ne jàpp naa julli timis mais nag diggante bi wóorul ma ndax mu ngi sikk sàkk ndax njàppam yàqu na war a yàquwut lu muy def jàppaat dafay dem jàppiwaat loolu la imam Malik wax waaye yeneen borom xam-xam yi yeneen ngir yi li ëpp ci borom xam-xam yi waxuñ loolu parce que bu fekkee dañuy appliquer même méthode bi ñu waxoon sànq li wóor mooy njàppali li wóorul mooy toj gi am moom wóor na ko ne amoon na jàpp li ko wóorul mooy est-ce que toj am na wala amut li ëpp ci borom xam-xam yi dañ naan la hey sa njàppali baax na ndax toj gi ngay sikk sàkk mënta yàq njàpp lu wóor li nga xam ne leer na la yow jàpp nga xam nga jàpp gi moom leer na la ne def nga ko dem julli ju timis li la leerul mooy ndax diggante bi dem nga fi tu ndox wala def nga fi lu yàqu sa njàpp yaa ngi koy sikk sàkk waaye boo gisee yow nga jàng ci ngir imam malik ñu ne la njàpp la yàqu na imam malik dafa xool beneen principe bu dul njàppali rek dafa xool beneen mbir bu dul njàppali kese xam nga ñii dañoo xool ne njàppali moom wóor na li wóor mooy ndax li toj na wala tojut xam nga imaam Malik moom fu mu xool la tax ngay jàpp lan moo tax nga jàpp lu julli ah. war gi la julli war lu wóor la wala lu wóorut wóor na ne julli dalaa war mu ne wóoraayu warug julli nag njàpp lu ñuy sikki sàkka yàqu naam yàquut mënu koo dindi dégg nga wax maanaam bor borub tisbaar bi nga yoreel yàlla li koy dindi ndax lu wóor la ne yaa ngi ko yoreel yàlla lii tax bor bi wàcc la mu ne njàpp lu wóor lay doon te njàpp li kat yaa koy sikki sàkk fi mu ne même principe waaye dañoo xool ñaari angle yu bokkut ñële moom jàppale rek lañ gis ne jàpp nga lu wóor na ne jàpp nga waaye li la li ngay sikk sàkk mooy toj gi kon toj gi ngay sikk sàkk mënta yàq njàpp lu wóor li imaam Malik ne comme jàppule pour julli la te yaa ngi sikk sàkk ndax toj naam tojut sikk sàkk googu ngay sikk ne toj naam tojul mënul la dindi njàpp loolee mënta wàccee bor bi nga xam ne moom wóor na ne daf laa war muy wor muy boru julli moo tax léeg nga gis ñu wuute nga foog ne dañoo li ñuy wax teguñu ko fenn wala kii li ñuy wax tegu ko fenn lii moo dëpp ak fekk sa dégg moo moo soriwul fekk sa dégg moo soriwul wa man zaada ñu jàng beneen kii soo ko bàyyi wa man zaada acca acca vas-y vas-y demal demal damay bañ nga fàtte ko oh, um, benn la bu ci bu ci jiitu rek garaaw bu ci maanaam buñ ne ku wàññi yokk ci julli na sujjoot qabla salaam mooy ci même julli gi am nag wàññi ci même julli gi am nag yokk bu ci jiitu it doesn't matter moo xam na ngaa yokk soog a wàññi wala da ngaa wàññi soog yokk par exemple da ngaa juum sujjoot ñetti yoon ci rakk bu njëkk bi yokk nga rakk ñaareel bi nga fàtte jàng saar wàññi nga da ngay sujjoot qabla salaam danga juum jàngoos fat danga fàtte jàng saar ci rakka bu njëkk bi wàcc nga nga juum yokk sujjóot ci rakka ñaareel bi yokk nga ci ñaari kaay yëpp qabla salaam ngay sujjóot leer na de alhamdulillah wa man zaada ku yokk na fi salaati ci julli rakaatan benn rakaa aw rakaatayni mbaa ñaari rakaa sajada na sujood baada salaami gannaaw salmal ku juum yokk ci julli gee la mbaa timis benn rakaa mbaa ñaari rakaa da ngay sujjoot gannaaw boo sëlmale waaye wa zaada ku yokk na mu nag fi salaati ci julli mislaha kemem mislaha kemem batalat julli ga yàqu na bu ñuy wax ñaari rakkaa na fekk ne ci timis nga ko yokk mbaa gee de mais su fekkee julli gi ñaari rakkaa nga yokk ca yeneen ñaari rakkaa yokk nga ca kemem maanaam kuy julli suba bu ca yokkee ñaari rakkaa julli ga yàqu na kuy julli timis bu ca yokkee ñetti raka julli ga yàqu kuy julli gee mbaa tisbaar mbaa tàkkusaan bu ca yokkee ñetti raka même su dee dafa juum ñeenti raka même su dee dafa juum julli ga yàqu na ma leer na am leer na hmm? mu ne waman shakka wa man shakka anamu ku sikk-sàkka fi kamaali salaatihi ci matuk julleem ataa na dikkee bi ma shakka fiihi la mu sikk-sàkka dégg nga wax ci lu tax wa shakku ndax sikk-sàkka fi nuqsaani ci wàññi ka taxaquqihi mi ngi mel ni dëggoom rek dellu nañ ci masala njóobama li ngay sikk ndax def nga koom defoo ko mel na ni defoo ko rek defoo ko moo tax mu ne wa shakku sikk sàkka fi nuqsaani ci wàññi ka tahaqquqihi damay sikk sàkka ndax julli gi mat naa matut li wóor mooy matadi gi damay sikk sàkka ñeenti rakka laa am dama war a sëlmal walla ñetti rakka laa am mu ne jàppal ne ñetti rakka nga am ndax sikk sàkka ci wàññeeku mu ngi mel ni wóor na ne da ngaa wàññi sikk sàkka ci wàññi mi ngi mel ni wóor na ne ha da nga wàññi yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa ida shakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawaaba falyutimma alayhi thumma liyasjud sajdatayni hadis jaa ngi ci buxaari mi ngi ci muslim ci lafdu buxaari falyutimma thumma yusallim thumma yasjud ay baada salaam dégg nga wax ji yonentu nee na bu kenn ci yéen dee julli ba mu yàgg muy sikk sàkk ndax lii def naa kaam defuma defuma ko mu ne na nattale njub mooy la muy sikk sàkk def na koom defu ko defu ko na ko indi damay sikk sàkk ndax am naa ñaari rakka wala benn rek laa am naa jàpp ne benn laa am indi beneen muy ñaar am naa ñaar wala ñett naa jàpp ne ñaar laa am indi beneen muy ñett am naa ñett wala ñeent naa jàpp ne ñett am naa indi beneen muy ñeent julli gi mat naa matut naa jàpp ne matut li ma foog ne moo tere mu mat bu fekkee ne benn sujjoot lay lay sikk sàkk ci rakkaab eh, bu mujj bi wala ñaari sujjoot laa def naa def ñaari su def naa indi beneen sujjoot damaa dem bay sëlma ma ne waa mooy yéen man damaa jóg rek bëgg a sëlmal wala taaye na naa jàpp ne taayeegu ma taaye bu mujj bi ma taaye soog a sëlmal su ma sëlmalee ma sujjoot baada salaam xaw ma leer na am ku def benn sujjoot ba nappi nga wax kon kay xanaa leer na ne def nga benn sujjoot sa maanaam dafa toog dafa toog di sikk ndax def na benn sujjootam deful benn sujjoot defagul benn sujjoot daf koy def dafay defa ah waxaat ko daf fi fi fu fu bu jógee dafay dafay dem sujjootiwaat looy sikk ndax def nga ko defoo ko rek defagoo ko danga koy def bu julli ga pare nga sujjoot ba'da salaam da ngay sikk sàkk ndax ñaari sujjoot nga sujjoot wala benn benn nga sujjoot da ngay sikk sàkk ndax sujjoot nga am sujjootoo sujjootoo hmm? déedéet sujjoot ponk la looy sikk sàkk rek defoo ko loolu moom déedéet farata bu feddee ko amul feddali ko amul farata rek moo am sunna bu fàddaliku am na waaye lii farata la waaye li may li ñuy wax nii dafay apply in everything yaa ngi dégg li ñu wax nii dafay apply tey jii taaya par exemple xam nga sunna la yow yaa ngi toog bëgga a sëlmal di werante ndax man taaya naa wala taaya guma ndax dangay ngay sëlmal ne lii na la déedéet da ngay taaya da ngay jàpp ne taaya go da ngay taaya soog a sëlmal maanaam booy sikki sàkk ndax man waa man toogaay bi ma toogee est-ce que jàng naa tashahud wala jànguma tashahud jàngal tashahud mosoo koo jàng même su fekkee da ngay sikki sàkk ak quatre-vingt-dix pour cent jàngoo ndax looy sikk rek la gën a wóor mooy ne defagoo ko fu loolu ngay jàpp waaw loolu lu dul nag muy koo xam ne dégg nga sikk sàkk feebaram la kooku dootul gestu sikk sàkk fa man shakka ku sikk sàkk na fii rakaatin wala du foofu ci rakaa aw sajdatin wala ci sujjoot ata biha na ko dikke wa sajada baada salaami mooy li nga doon laaj léegi mu sujjoot gannaaw moom salmale damay sikk sàkk ndax man rakka bi ma dese wala dese na ma beneen naa indi beneen damay sikk sàkk sujoot naa wala sujootaguma naa sujootaat naa sujoot du ma wax sax sujootaat ndax bu ma ne sujootaat day mel ni sujootoon naa damay jàpp ne mosuma sujoot même su fekkee mel xel maa ngi naan ma sujootoon ma noppee ma sujoot ba de salaam wa in shakka fi salaami xel mee dem ndeysaan mu ngi toog ba ci kanam mu ne waa man man est-ce que sëlmal naa waay ci xelam maanaam luñ la jàngal rek nga foog ne du la du dal kenn am na kom dal ndax rawatina ñi nekk Amérique ñu ëpp ñuy sikk sàkk ci àdduna ñu nekk Amérique la laa ñu nekk Amérique rawatina waa New York ak waa Los ah. ndax seen xel yi néew borom njabooti nag borom njabooti <laughs> wa in shakka ndem sikk sàkk na fi salaami ndax sëlmal naam sëlmalut sallama na sëlmal rek <laughs> ah in kaana qariban su fekkee ne lu jege la wala sujuda alay sujud waru ca damay sikk sàkk ndax sëlmal naam sëlmalut damay sëlmal rek mu ne waaye sujud waru ca su fekkee ne nag bi may fàttaliku loolu dégg nga yàggut ah. fi ma toog rek ci sama kii bi def samay baaqiyaatu saalihaat maa ngi la ci laa ah, sikk sàkk ne man est ce que sëlmal mu ne damay sëlmal mu jeex amul sujjoot wa in taala su yàggee nag julli naa ba pare yaa ngi dégg eh, def samay baqiyaatu saalihaat yaa ngi dégg eh, toog di waxtaan ba ci kanam ma ne waa man est-ce naa yàgg na batalat salaatuhu julli yàqu na julli ga yàqu na waaw parce que julli dafa bokk ci ponk ya méngale méngale te bu distance di yàggee méngale dem na mm-hmm. wa in shakka fi salaami fi in kaana qariban wala sujuuda alayhi wa in taala batalat wal mu waswasu koo xam ne nag dafa am feebaru waswasa fu mu toll lu mu def rek di sikk sàkk ndax def na ko ak ko ku ñu jax-jaxal mu ne yatruku dafay bàyyi alwaswasata jax-jaxal ga min qalbihi ci xolam wala yati bum dikkee bi ma shakk fiihi la muy sikki sàkk jax-jaxal daal li koy faje mooy lu la seytaane mbaa xel mi na defoo ko nga ko def naa ko yaa ngi dégg yow benn sujjoot nga sujjoot o ñaar sujjoot waxal sa bopp ne ñaari sujjoot même su fekkee ne ak quatre-vingt-dix pour cent yaa ngi naan benn sujjoot nga sujjoot gannaaw yaa ngi si rek ñaar la noonu nga koy faje mu naan la ñaari rakk nga su am ñett nga naan sama xel mi naan la ñetti ràkk ñett nga am maanaam contraire regle bi ngay ngay ngay ngay jëfandikoo saa yu koo xam ne dafa am feebaru sikk sàkk dafay bàyyi sikk sàkk lu lu la nag waaw ndax léeg-léeg da ngay julli ba pare dem toog doo am jàmm fekk demoo julli jiwaat noonu la la seytaane di toppee ba dof loola nag ba dof loola bi nag bëggul nga dof yàlla bëggu ko moo tax daf la koy fajal mu ne walakin li fi nekk nag yasjudu ba'da salaam yi dafay sujjoot gannaaw sëlmal sawaun moo xam shakka dafa sikk sàkka fii ziyaadatin ci yokk aw nuqsaanin mbaa ci wàññi da dangay sikk sàkka ne man yokk naa ci julli gi de yokkoo waaye boo paree nag su jotee baada salaam da ngay sikki sàkka nag wàññi naa ci julli gi de wàññiwoo waaye boo sëlmalee boo baada salaam xaw ma leer na am déet oh. hmm. waaw kuy sikki salaam rek lay julli day su jot ndax su jot dootu dootul su pour defar julli gi waaye su jot pour todaxal seytaane hmm, kuy sikki sàkk. Mm-hmm. mooy koo xam ne bu may wax sikk sàkk mooy koo xam ne dafa am feebaru sikk sàkk laa wax waxuma ko sikk sàkk bu normal mooy koo xam ne bés bu saa yuy julli rek il faut mu mu mu am mu am dut ndax def naa lii wala defuma lee kooku lépp lu muy dute ndax def na ko defu ko rek na jàpp ne def na ko même su su demee ba sëlmal ba sujjoot baata salaam dem am na naan ko yaa ngi nii xam nga ne defoo nangam ne ko ne maa tey ah, boo ko deful mu def loola de maa la ko wax ah, maa tey nga koy maa tey yaa ngi dégg xam nga ne yow ni nga jànge fatiye bi matul maa tey laa ilaha illallah bi yow li nga wax kéeféer la ndax sa illallah bi ni nga ko waxee baaxul maa tey ah, maa tey rek boo ba nga sujjoot bi alayhi salaam noonu lañ koy fajee kat waaw ndax al aqlu manaatu taklifi li tax yàlla naa la defal ak bul def mooy li nga ëppale bàyyi may am xel te waxoon naa leen juróomi principe bu fiq dafa am tamit juróomi kulliyaat juróomi yëf yoo xam ne diina da sama borom daf ñu ko sàmmuloo sañoo ko yàqal sa morom sañoo koo sax yàqal sa bopp yaa ngi dégg de fam juróom yëf yoo xam ne ñoom rekk a ñor yàlla ci jaam ñi ah ajaa njooba loo wax nga ne imam Sakho salaamaaleykum waaleykum salaam ajanaytu ajanaytu Um, I have a question. Because you made a large um, comment on on uh, doubt. Mm-hmm. Mm-hmm. So it's about missing prayers or what? Because you, make the comment in in I don't understand Wolof, mm-hmm. but I catch some words. Mm. Mm. Uh-huh. So I, I don't so know what, I'm, what, what, what, what, uh-huh. I said to Salamata, after the class, uh-huh. I will send you the copy in English. How about that? Oh, Because I have covered more than one hour. <laughs> Mm-hmm. I will send you. the translation in English, inshallah. Okay. okay then, if you have any further question, we'll discuss it, inshallah. Mm-hmm. ma ne juróomi yi la sama borom sàmmloo bi ci njëkk mooy am am xel waaw ah, bon diine sax moo ci njëkk diine sañoo jaamu lu la neex yàlla rek nga war a jaamu ñaareel ba bakkan sañoo rey sa bakkan sañoo rey bakkanub jàmbur mënoo xaru mënoo rey nit ñetteel ba mooy am xel sañoo yàq sam xel rawatina xelum jàmbur maanaam boo xamee ne lii boo ko naanee sam xel yàqu doo ko naan boo ko jëfandikoo sam xel yàqu doo ko jëfandikoo moo tax sañoo naan sàngara sañoo koo jox nit sañoo doragewu sañoo dorage nit waaw ñaata ñaata yëf laa wax fukk wala are you guys following ñeent laa waxagum ñett ñett laa waxagum waaye yi ma war a wax juróom lañ mu ngoog ñeenteel ba mooy al ard al ard mooy der maanaam you cannot ruin your honor let alone the honor of others mënoo yàq sab der mënoo yàq deru ji ñi lépp loo xam ne soo ko defee nit ñi xeeb la waroo ko def lépp loo xam ne soo ko waxee nit nit ñi xeeb ko waroo ko ko wax waroo waroo dugg foo xam ne bu ko fa seen ni ah kii moom fa dugg na le ab baar la bu ñuy jaayee sàngara waaye yow uh, boisson gazeuse nga fa doon wut waaye ku la gis foog ne da naan sàngara waroo faa dugg ndax moomoo sa bopp yàllaa la moom ba pare da am njaboot am ay bokk waroo gis nit nga ñaaw njortu ci moom ba waxal ko loo xam ne dana tax honneur am yàqu deram yàqu mooy der waaw lu mët a bàyyi xel la juróomeel bi mooy alal sañoo yàq sa alal sañoo ko amee amin wu daganut sañoo jël alal yi jaambur te d'accord ca loolu yoon wax ko waaye tey nag rek tey tey bind bu riche nga bind bu riche <laughs> bind ndax jàng ngeen juróomi principe bu fiqh jàng ngeen juróomi principe yi tax yàlla indi ñu fi hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa taala wa barakatu mbokk yi dégg sunu kàddu lii xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dinner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imam Muntaqa Sakho borom xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la imam Muntaqa Sakho mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu mun Muntaqa Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla Imam Mountakha saako bis ba si na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg nañ ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne satan ay leen lay xewee kon mbokk yi lu waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé bis noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag. rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island